ñu waxtaan tuuti ci sant ak soññee ndax Serigne Mbacke Madina danoo yaakaar ne képp kuy sàkku ngërëmam jaar ci alquran gëm nañ ne di ko am bëggoon na ko safoo woon na ko saxoo na ko ci loolu la taalibe yi dajaloo woon waxtaan ci sunu biir ñu ne nag ñeen wut daal ay alxuraan Serigne Mbacke ma dina jun bokk ñun ñëpp loolu nag Serigne Cheikh mu tedd nii te baax yombalal na ko lool jàppalal na ko jox ñu béréb buñ ko def jàppale nu ci zaahir jàppale nu ci baatin ba suñu borom dogal tey daara ji alhamdulilahi rabbil alamin tàmbali liggéey bi lu mu bon bon na ci ñaar at def nañ ca ñeent fukki million yu tegal waaye nag xam ngeen ne yoon murid amul wàcc lépp loo def ba noppi da ngay bëgg a defaat def nañ fa bâtiment bu baax bu dongo yi dëkkee def nañ fa mbaar mu baax bu ñuy jàngee alxuraan léegi nag ñu am beneen bâtiment bu ñu fa bëgg a taxawalaat ngir sëñ daara yi seen dëkkuwaay ak tamit jàkka bi ñu fa bëgg def bu xale yi fa nekk di tout tànkee juróom loolu nag moo taxoon ñu bëggoon ñëpp bàyyi ci xel kenn ku ne gën cee jaayantewaat suñ kem kàttan ngir jàkka joojee ñu defar ko waaye tamit bâtiment biñ war a defar seen daal tamit ñu defar waaye di sant bu baax ci taxawaay bi di gërëm bu baax ci taxawaay bi bokk taalibe bi sëriñ bi wax dëgg yàlla ba yëkkatee liggéey bi xam nañ ni jàpp zaahir am na jàpp baatin am na waaye taalibe yi tamit def na seen kéem kàttan kon yéen ñëpp ñu leen ci xaaraat waaye tamit ni ñuy def di jël dongo yi dul dara lu jafe ndax tamit nii ñi li si ëpp dana ko jaayante ci suñu biir waaye tamit képp koo xamante ne bi ba nga fa andi sa doom lañ lay laaj taxul mu diis te taxoon mu metti waaye tamit lépp rek ngeen liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan koo xamante ne bii noppi nga ci rek ñun ñoo ngi fi commission lañ koo xamante ne bii ñoo yor daara ji incha allahu taala di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xaar ñëpp ci daara ji ngir sàkk ci ngërëmul sëriñ bi defal ñëpp ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa